tey di lundi 2 décembre 2024 le coquet du président Bassirou Diomaye Faye jëlee ndogal daal di def akub décret présidentiel ngir ñu daal installer officiellement assemblée nationale ginnaaw bañ xamee résultat yu bàyyeekoo ci élection législative anticipée ñu daan amal ci réew di Sénégal si li ni mel nag waa parti bii di Pastef bëri na ay profil yi nga mun nañoo nekk président de l'Assemblée nationale te ci profil yooyee am na ay góor waaye itamit am na ay jigéen si lu jëm ci profilu jigéen ñi mun nañ se daal di jiital kiñ dippee mbenn fay mi nga xam ne ne moom moo nekkoon deuxième ci liste nationale bi daal di topp ci ginnaaw kookee di président Ousmane Sonko kookee di Mbène Faye akub agent au service di développement la daal di nekk ab patriote bu influent ci parti bii di Pastef foofee ca Yoff waaye tamit daal di nekk vice-présidente du mouvement des intellectuels patriotes biñ dippee MOSIP waaye tamit beneen profil jigéen bu ci daal di topp du kenn ku Maimouna Bousso mi nga xam ne ne daa yàgg bokk ci leaderu parti bii di Pastef daal di mën a guerre yëpp ginnaaw bañ tegee loxo kookee di président Ousmane Sonko waaye sax avant ñu koy daal di laal ci réew mii di Sénégal kookee tamit xam nañ ko ci pertinence am ak engagement am ci biir parti bii di Pastef te am na profil bu baax pour nekk présidente de l'Assemblée nationale ku ci topp du kenn ku dul Ba nekk akub juriste de formation ñëpp xam ko ci pertinence am ak engagement am ci partie bii di Pastef kookee tamit am na profil bu baax kër nekk président de l'Assemblée nationale ci quinzième législative bi ci réew mi di Sénégal waaye beneen profil bu ci topp du kenn ku dut Ayib Daffé mi nga xam ne ne moom moo nekkoon mandataire national ci kookee di président Ousmane Sonko ci élection présidentielle 2024 yi ñu génn kookee tamit ñëpp xam nañ ko ci pertinence am waaye tamit ak ci engagement am ci biir parti bi di Pastef kookee tamit mun naa nekk président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne ne dina remplir pleinement rôle am biir Assemblée nationale